xam ngeen ne ci ay jamono diggante bi tàngoon na jër Marseille li ñu bëggoon moo di jaay ko ba club bi nekk ca Angleterre di Leeds United ñëwoon def ci gone gi xaalis loole mujjutoon sotti ak club bii di niis nekk ca France ñoom it bëggoon nañu doomu Sénégal bi waaye loolu sottiwul woon jamono ji nag Bamba digganteem ak Marseille rataxaat na ndax waa Marseille li ñu bëgg moo di mu yokk contraam toog foofee doxal ndax ëllëgug Marseille waa Marseille jàpp nañu ne Bamba da caa bokk ndax gone gu football am ci moom yaakaar la ñu sukkandikoo ci likim nag semaine yii di ñëw maanaam ayu bés yii di ñëw waa Marseille di ñu dinañu ubbi waxtaan ak waa kër Bamba ngir Bamba xaatim beneen contrat foofee doxal xibaar boobu l'équipe moo ko xamle ñu jugee ci Bamba dem ci équipe nationale bu Cameroun ñoom nag démb Brésil la ñu doon jàkkaar lool match boobee Cameroun moo ca am ndam dóor ko benn bal ci dara Vincent Aboubacar moo dugal bit ba am ca match boobee waaye ki leen di tàggat di Rigobert Songo am na ñaari ndam ci réew moomee di Brésil am na ca ndam en tant que coach muy ndam li mu am démb am na ca ndamit en tant que footballkat ndax ci atum 2003 Brésil ak Cameroun jàkkaarloo nañu ci coupe confédération match boobu Cameroun moo ca amoon ndam te Rigobert Song ma nga woon ca terrain ba di football kon am na ndam ñaari yoon ci kaw Cameroun phase de poule la woon nag coupe confédération ñu jóge ci Rigobert Song waaye équipe nationale bu Brésil duñu ko génn gum ndax seen légende bii di Leroy Pelé moom nag xam ngeen ne dafa am cancer cancer boobee nag dafa yëngatuwaat jamono ji sax mi ngi ci soins intensifs maanaam faj ma la ñuy baral faj mi nga xam ne moo gën a kawe moom la ñu koy defal jamono jii kon sonn na muy le roi kon gaañi ñaanal leen ko mu wér ak jàmm muy pële mi nga xam ne doomu Brésil la def jaloore ci football bi rawatina ca réewam di Brésil ñu jugee ci le pële dem ca waa Barcelone jamono jii nag waa Barcelone seen xel dal na ci doomu Uruguay bi di Ronald arawxo moom nag Barcelone dafa tiitoon lool ci ay mbiram ndax ba muy dem ca coupe du monde ba blessure am bi taxul woon mu wér lool waa Barcelone li ñu ñaanoon Uruguay moo di bu mu football foofee jamono ji nag Uruguay ñibbi nañu moo tax Marca yéenekaay nee na xelu waa Barcelone dal na kon Ronald arawxo dina delluwaat ca Barcelone faju ba wér doora duggaat ci terrain yi football ndax réewam jóge na ca coupe du monde ba. ñu jógee ci Ronald Araujo waaye Barcelone googee duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Mundo Deportivo jamono jii waa Barcelone li ñu bëgg moo di latéral droite bu mën a kar loolu la ñu bëgg nga xam ne attaque ba ña fa nekk seen xel dina dal ñett ñii nag bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom la Barcelone bëgg kenn ki ci njëkk moo di. doomu Argentine bi di Juan Foyth moom ma ngay football ca Villarreal keneen ki moo di Benjamin Pavard moom doomu France la ma ngay football ca Bayern de Munich ñetteel bi moo di Diogo Dalot Diogo Dalot nag ma ngay football ca Manchester United ñett ñi waa Barcelone bëgg nañu ca kenn bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu yóbbu ko foofee mu doxal jàppale Xavi xibaar boobu Mundo portivo moo ko xam xamle ñu jógee ci waa Barcelone dem ca waa Inter ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci Di li ñu bëgg moo di wut góol bu mag boo xam ne dina mën a kujje ak onana ndax Andonovix ma fa nekk di kujjee ak onana contrat bu saison bi jeexee day jeex te waa Inter noppiwuñu ngir xaatimal ko beneen contrat ñaar ñii nag bokk nañu ci ñi nga xam ne ñoom la Inter bëgg ka ca njëkk moo di yan Sommer moom doomu Suisse la keneen ki moo di altaay Bayindir moom ma ngay góolu ca Fenerbahçe ca Turki lay góolu ñaar ñii nag waa Inter ñoo ngi leen di bàyyi xel ngir jënd ca kenn mu dem kujje ak onana foofee ca Inter xibaar boobu Dimarzio moo ko xam xamle ñu jugee ci waa Inter ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Juve bu ñu sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport Juve ak doomu Angleterre bii di Samuel Ealing Senior jubo nañu ngir mu xaatim contrat bu bees tàq doxal foofe gone gi excentré bu mën la muy def la ku football am ci moom yaakaar la moo tax jamono ji Gazzetta dello Sport nee na jubo na ak waa Juve ngir xaatim fa contrat bu bees tàq doxal gaañi xibaar yi foofu